asalaamaaleykum mbokk internet yu DKR 221 ginnaaw ba ñu leen nuyoo ba pare ñu fas yéene dikk ak yéen ci yeneen ci ay xibaar ñu fas yéene àddu jëmee ci mbir mi nga xam ne jamono ji suñu moytuwulee dina lëmbee askanu Sénégal mu di mbiru ki nga xam ni moom moo di Farba Ngom Farba Ngom nag bu ñu ko waxee xel yépp dina dem eh, ci régime présidentiel bi nga xam ne nag moom da cee am baat wala sax nag mu am ci eh, li nga xam ne moom moo di tànk ak loxo loxo bu baax a baax ndax kenn du tudd Macky Sall te tudd ñu ki nga xam ni uh, moom moo di milliardaire bi di wuyoo ci turu Farba Ngom Farba Ngom nag di doomu añam uh, ku ne xam na ni rek diwaanu Matam Fuuta ak li ko wër boo fa demee rek kenn du fa laaj turam waaye tamit nag wàllum alal moom uh, kenn dootul dem bàyyi ko moom Farba Ngom moomee ñu dippee ko nag ki nga xam ni moom moo di géwalu président de la république ci jamono jii ñuy wax ak yéen mi ngi ci guddi gu bët setagul xamee ni nag ay révélation yu explosif moo am ci moom jëme ci wàllum alalam maanaam koomam goo xam ne rek mi ngeek moom naka noonee tamit ay leeral yoo xam ne dafa jub ci moom jëme ci wàllum ni mu amee alalam ak yeneen moom moomee nga xam ne nag moom mooy maire bu ña añam ndaxte nag bu ñu fàtte ni moom mi nga xam ne moom mooy farbangoom moom moo jiitee li nga xam ne moom moo di gox boobee ñuy wax añam ca Matam moom moomee nag di doomu Fuuta bi ci jamono wax ak yéen xam leen nañ ñu daal ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di enquêteurs yi ginnaaw bi of nag digle ngir ñu dem daal di rek saytu li nga xam ne moom moo di am amam ak yeneen ak fu mu ko jëlee enquêteurs yi daal daal nañuy fuye li nga xam ne moom moo di këram ba fekk fa nag moom ci alalam biñ ko estimé toll na ci rek vingt cinq milliards ci sunuy koppar maanaam ñaar fukk ak juróom ci ay milliards ci sunuy koppar waaye tamit nag maisons ak six yoo xam am na ko fii ci ndakaaru maanaam fukki immeuble ak fukki ima fukk ak benn fukki ak juróom ci ay kër waaye tamit nag juróom benn ci li nga xam ne nii nag moom moo di ci ay immeuble yu mag a mag fii ci région bu Ndakaaru maanaam ci fi nga xam ne nii rek moom moo di ci Ndakaaru la ko am bokk na ci nag lu ñuy wax ci wàllum patrimoine immobilier maanaam lu jëm ci ay oto ak leneen lu ni mel ci wàllum automobile nag xayma nañ ko lu toll ci 800 million ci sunuy koppar maanaam juróom ñetti téeméeri millions yoo xam ne nii nag moom Farba Ngom ci wàllum automobile ak immobilier ak yeneen daal na koy rek dëxëñoo moom tamit ci wàllum terrain nag am na lu toll rek ci 7400 mètres carrés yoo xam ne ba tey rek maa ngi ko dëxëñu ci diggante euh, Mermoz aéroport euh, Diamniadio sali ak fële nga xam ne moom moo di ca Somone naka noonee ci ay appartement yu bari yoo xam ne rek moom ci turam euh, la nekk moom moomee di Farba te pourtant nag moom mi nga xam ne moom moo di Farba Ngom ki nga xam ne moom moo di ancien vice président bu assemblée nationale di Moustapha Cissé Lo daan na fi wax rek ne nañu rek def le tout ba kii di Farba Ngom daal di nag déclarer li nga xam ni. moom moo di patrimoine maanaam li nga xam ne moom moo di am amam ci wàllum rek dooleem li mu am ak la mu ñàkk yëpp nag ko rek wane ca of nag gi nga xam ne nii nag ñoom uh, tooguñu fi lu dul di saytu ñi nga xam ne ñoom ñoo yor alal ju jéggi dayo ji waral tamit ba Moustapha Cissé Lo daan sax ñaan ki nga xam ni moom moo di Farba Ngom ngir rek mu daal di wax fa mu jëlee alalam ak naka la ko amee waaye itam alalam naka la toll uh, bi ñu jàppee niki rek atum 2000 ba léegi si kii ñaata la am ci alal ak alal joojee fan la ko jëlee waral tamit balu ni mel Farba Ngom mësu koo def waral tamit ba sax moom moomee di Farba Ngom ñu ngi koy tudd ci wàllum espéculation foncière maanaam euh, dar li nga xam ne moom moo di suuf su mu moomut wala sax nag nangu suuf soo xam ne nii moomu ko waaye tamit am suuf soo xam ne da ko am ci njuuj njaaj mu nekk nag ay accusation maanaam ay tuuma yu bari yoo xam ne dañ koo tekk ci ndoddam naka noonee tamit ay marché yoo xam ne nii daal mi ngi ko gañee ci état waral tamit ba lu ni mel daal di koy may alal bu baax a baax ñu ngi koy wax ne moom Farba Farba Ngom fan rek la mën a lijjanti yooyu les marchés ci état bi ak yeneen yu ni mel waaye tamit nag ñu ñuy jox li nga xam ne moom mooy ay révélation de taille maanaam ay tuuma yoo xam ne nag dañu koy yëkki daal di koy tekk ci kawam ak ay dénonciation yoo xam ne nii nag ay date la yoo xam ne dañu koy xamal ndax le 13 octobre 2021 bi ñu weesu moom mi nga xam ne moom moo di far Ngom l'office national de lutte contre la corruption et concus concussion eh, di nag daal nañ koy nag eh, dalal waral tamit ba journal eh, bii di l'hebdomadaire l'indépendant daal di ñëw daal ñu ci indi ci xëtam wu yaatu daal ñu koy wan moom moom moomee nga xam ne nii nag moom moo di Farba Ngom ñuy wax ne nag dañu ko sax vilipande vilipande bu garaaw boo xam ne nii moom Farba Ngom mënatul dellu gannaaw benn yoon ci mbir mi waral tamit ba ci ki nga xam ne rek moom moo di ci présidente ba di Nafi Ngom Keïta ñoom ñooñee ñoo yebal ñi nga xam ne ñoom ñoo di l'enquêteur yi ngi rek ñu daal di dem saytu ko ci anam wi nga xam ne noonee la amee alalam waaye tamit nag alal jooji lan la def ba mu tollu noonee népp moom bi nga xam ne ni nag moom mooy Farba ba tey rek di député en même temps ci l'Assemblée nationale waaye tam di maire Agnam moom moo mooy bokk ci régime présidentiel bi waaye tam di ki nga xam ne nii nag dafa am ab kër gu mag a mag fële ca Almadi waral tamit ba kër googu sax nee nañ bu ñu ko xayma war naa toll euh, presque ci lu mat un milliard de francs CFA mu nekk nag loo xam ne ni dafa nekk lu jéggi dayoo ci wàllum alal waaye tam nee nañ boo demee ci biir kër googee bu ñu xaymaa li nga xam ne dafa jëm ci wàllum parc automobile euh, bu ñu ko xaymaa ci loolee toll na ci huit cent millions ci sunuy koppar waral tamit ba li nga xam ne ni moom moo di ay oto yoo xam ne dafa daal di jéggi dayoo ci wàllum xaalis toll na ci loo xam ne diñ ko xaymaa dafay nekk benn BMW X7 ak nag ñaar ci ay Mercedes classique yoo xam ne rek yooyu yëpp bu ñu ko xaymaa dafay toll ci 400 millions de francs CFA maanaam ñoom ñëpp bu ñu ko xaymaa ci sunuy koppar mu nekk alal ju takk joo xam ne ni nag moom meeru añam di Farba Ngom daanaka rek ci looli la dal di nag dëxëñu ci wàllum alal mu nekk nag lu xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di nag journal bii dafa rekk daal di ne alal ji fa dal di jéggi dayo waaye tamit nag eh, lii mën ngaa liggéey ñaar fukki at yoo xam ne mën mënoo koo am te mu monte ki nga xam ne moom moo di Farba Ngom daal dinay rek am loole lépp ci alal mu mel ni nag kookee nga xam ne nii moom la ñuy woowee ki nga xam ni moom mooy géwalu njiitu réew mi di président Macky Sall dafa rek daal di am tamit ñeent ci ay kër yoo xam ne bu ci nekk trois cent mètres quatre carré la te mu ngi ko am fii ci El Almadi te nee nañ bu ñu ko rek xayma loole lépp day nekk trois milliards sept cent cinquante millions de francs fa ci sunuy koppar ba tey te it nee yooyee këri sax da ko daal di luwee ndaxte eh, ci li nga xam ne nii moom moo di rek wàllum immobilier tam da ci yëngu waral tamit mu nekk nag koo xam ne nii day yëngu bu yàgg ak léegi ci wàllum immobilier tax tam alalam jooju yokk waaye tam ñu ngi laajte ci biir li nga xam ne moom moo di ci boobu boobulee xibaar ana nan la def ba alal joojee yépp mu am ko ci ay kër ak ay oto doon nekk na lu jaaxal ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi nee nañ tam juróom ci ay maison yoo xam ne maanaam eh, juróom ci ay kër yoo xam ne euh, toll na ci 200 mètres carrés am na ko ca Mamel bu ñu ko évaluer ba tey dafay tollu ci 956 millions de francs CFA nee nañ tam 1000 mètres carrés am na ko ca Mermoz ak deux immeubles yoo xam ne rek R plus 8 la euh, mu am ko ci localité yu différent ci biir Mermoz mu nekk nag tamit euh, six maisons maanaam juróom-benn kër yoo xam ne ni nag cité kër góor gi la ko am waaye tamit nag mu am ca deux ñaari immeubles. immeuble yoo xam ne R plus 7 la fële ca Sacré Cœur waaye tam ñaar ci ay immeuble am na ko ca point 1 point E waaye tamit nag ñett ci ay kër am na ko ca cité Damel am na tamit huit huit terrain yoo xam ne toll na ci 200 mètres carrés huit terrain yoo xam ne bu ci ko xaymaa rek lépp 200 mètres carrés la am na ko ci ancienne piste bu aéroport waral tamit ba. moom tamit mu am benn ferme boo xam ne toll na ci deux hectares ci jam ñaajo maanaam foo xam ne rek dafay def wàllum jurub wàllum jur gi ak lépp loo xam ne rek lu ñuy sàmm la waaye tamit nag ay tool yoo xam ne daal na ko fay dajale mu toll ci deux hectares mu ngi ko am ca jam ñaajo waaye tam huit cent mètres carrés yoo xam ne ca sumoon la nekkee waaye tam ñaar ci ay kër la am ca Saly waaye tam deux cent mètres carrés am na ko ca cees mu nekk nag lim bu takk boo xam ne ci wàllum patrimoine la waaye tam wàllum alal joo xam ne moom moomee nga xam ne nii moom moo di Farba Ngom lépp daal dafa dëxañu ci ndoddam waral tamit ba ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di rek l'enquêteur yi dañu ko nag enquête enquête bu tey ba xam lépp loo xam ne nii nag Farba Ngom daal dina koy am waaye tamit nag mu nekk loo xam ne nii nee nañu daal amu ko benn yoon ci lu lew ndaxte tamit joojule alal nit mënu koo liggéey ci ñaar fukki at koo xam ne nii dañu ne sa baay sàmmkat la woon sa yaay jaaykat la woon mënoo fee am alal ju toll noonu noonu fekk ne sax toogoo benn yoon ci ban wupp lekkool te it ba ngay débuté amoo sax cent franc yu mat mën a mottali ab ndékki waral tamit ba nga wana ci vingt ans nga yor fi boobu alal yëpp yàlla maye ne waaye tam mayewul lu toll noonee tax na ba xel yëpp ci jamono ji daal di fixé wu jëm ci ki nga xam ne nii moom moo di Farba Ngom di député maire bu añam waaye tamit nag di jege ñaale bu baax a baax kii di président Macky Sall tax na sax ba moom moomee naan ko rek dañ ko daal di duut baaraam ne ko rek na xoolaat ana nan lay def ba kii di kii nga xam ne moom moo di far Ngom di jege ñaale yoon mën koo teg loxo ngir rek daal di def ab njàngat ak taxaw seetlu ci li nga xam ne moom moo di ci alal joojee mbokk yi foofee la ñu yemandi ak yéen ci boobu la xibaar fas yéene nag di leen ko toppal ba saa su ne rek lu ñu ci am ñu indil leen ko ci kàttanu sunu borom di leen jaajëfal ci déglu bi di leen jox dig jaajee ñi ci kanam